li tax nag ma ñëw benn mbir la rek muy yóbbante bu ma la professeur Moussa Baldé yóbbante moom moo waroon a ñëw mais tey jii xam ngeen àllarba la mi ngi conseil des ministres moo tax mënul ñëw mu ne mën naa ko ñëwal ànd ak gouverneur mu jiita délégation bi ñu ñëw nemmeeku waa Sangel nga xam ne si commune Latmingué la nekk te mu ngeen amoon tiis fan yi passé di wax ne d'abord premier message bi mooy le professeur Moussa Baldé nee na mi ngi koy naqatlu bu baax a baax comme ñëpp ni ko njiiti réew mi defee mooy condamné na acte yooyu rafetlu wu ko ñaawlu na ko bu baax a baax a baax a baax deuxième message bi mooy mi ngi dalalaat seen xel di dalal xel ñi nga xam ne fii la ñuy liggéeyee waa dëkk bi maire bi euh, le chef de village ak ñi nga xam ne ñooy suñuy euh, xarit suñuy mbokk ñi nga xam ne ñoo ubbi centre agréé bi mooy centre de réception de graines suñu mbokk chinois yi ak ñi fiy liggéey directeur bi di gën leen dalal seen xel ne leen fii Sénégal dëkk dëkku réewum jàmm la réewum teranga la teranga googu ñu xamee ñu ak jàmm jooju ñu xamee ñu du fi mës a jóg te foog naa ne moom ak ay naatangoom yi nekk ci gouvernement bi danañ liggéey pour que lii ngeen nekk activité bi ngeen nekk nga mën di ngeen koy wëyal te dara du leen ci fekk lu dul jàmm loolu daal laa indi woon comme message di gën a dalal seen xel te nii ngeen ñëw uyu suñu teeru ci kontaan nañ ci bu baax a baax ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm di leen wax ne nii lañ bugg nag mu continuer ñëw leen liggéey matukaay yëpp gouverneur ak équipe su mën a gouverneur parce que moom moo jiite comité régional de sécurité lépp luy sécurité mi ngi ci muy gendarmerie armée parce que même man di wax ak man ni ni may wax ak ci la ci administration territoriale la ne xam naa li fa xew président bi di wax sax première mission au gouverneur moy d'abord participer à la sécurisation des personnes et de leurs biens avec ses proches collaborateurs comme gendarmerie armée police ak yeneen forces de sécurité donc nous ngi leen dalal seen xel ñew leen ngeen liggéey parce que li ñu gis fi tay bañ duggee si usine bi euh, visité gis nañ président ngeen di dooleel réew mi di parce que tey jii xëy ko doon xaar si état bi mais si amee ay mbokk ay xarit ñëw créer fi usine di jël lu toll ni 300 personnes 400 personnes li leen liggéey lu ñu am xëy am ngontu loolu da ngeen di te loolu ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax te képp kuy jàppale réew mi nag réew mi aussi dana la fonk dana la jàppale te dana créer condition pour waneel la lii nga am ni tey ñun la gën a euh, neex ah maa ngi fàttali rek que réewum Sénégal ak réewum République populaire de Chine seen diggante dafa neex te diggante bu yàgg la te ñaari président yi di ko dox nu mu waree. Euh, ministre agriculture qui nous envoie euh, avec euh, le gouverneur. Euh, merci tous les administratifs. Merci pour la presse. Oui, oui, oui, oui, oui. On sent bien, on sent bien ici. Merci. On m'a connu le travail. Merci.